neen amul temps dafa gaaw ndax Abbas Fall bi mu porté plainte saga lañ koy wax xaw ma. Hmm. deux jours la am ñu convoqué ko mu ñëw. le le journaliste Adam Fall. waxuma mi lax bi mu porté plainte saga benn waay bu bu publier benn benn article la la publier ci page Facebook am bu keneen bindoon. Hmm. mooy suñu cinq milliards yi. Hmm. mais Abbas da ko porté plainte mais après dafa wuy ji. alors mais quand même euh, euh, <laughs> il faut savoir que ni yoon dafa am temps. waaw waaw bu dee bu dee fee am na temps bu dee ci ñun suñuy pelante day am temps mais ñoom seen pelante amul temps vite fait la moo tax ma leen gis neen affaire régime de Pastef barki Serigne Saliou ku ci sàggan bañ rey la da ñàkk. rappelé ñàkk ku ci sàggan bañ gaañ la da ngay ñàkk parce que dañoo mën a fen dañ lay gaañ ba pare dem activer seen i chroniqueur ñu wër di la fenal sans limite la ñuy dem xam nga duulkat ya fa lañ ne ñu lay duulal. ma lay wax de. suñu ay mais fii kuy fen fa ngay dem. Abdou dama lay wax de dañ lay gaañ xëy matinaalu la xam nga Pape Djibril wax na ñett ci am solo tam ñu koy def nee na journaliste warul añee ñooñu sax duñu ay journaliste safurla nee na nit warul añee deru jàmbur nit warul ndekkee deru jàmbur comme sans limite ndi ndi warul njogoni ko wala yor-yoroo euh, deru jàmbur comme journal yor-yor war a war a nit di njogonaloo deru jàmbur comme comme comme keppaar gi de de de de kii Walfadjri xam nga. toog yow deru jàmbur bi ci ngay ndékki sans limite deru jàmbur ci ngay yor yor journal yor yor ci ngay njogonalu uh, keppaar gi Walfadjri yow deru jàmbur yi rek bu guddee nag nga nga nga kiiwaloo leen mm. nga wax sa xalaata leen deru jàmbur yi ci ngay añ di ci reer di ci ndékki nit da ko war a jomb te dama ne fii kuñ fi fenal kuñ fi gaañ dañuy def sans limite toog ràcc ah non yaa attaqué yaa def lii est-ce que lii la yaw lañ koy jiiñ may mën a nduur fay attaqué nañ ko jam ko mujjul fenn fal encore fa lañ jamaat naan est-ce que jamul boppam ak moo gaañ ko nan la nit mën a jame boppam réew mi ci boppam dañ cee instauré ay fen ba ba eh, réew mi moom ci ci lañ koy suuxat mm. ci fen lañ koy jëmbat te nag fen yi li gën a garaaw ay jigéen a koy def ñee moom ci takk njaboot njaboot gu bon ngay am ñetti jigéen ñee ma gis. ku leen takk njaboot gu bon a bon ngay am. maa ngi sant góor ñëpp nag. maa ngi laa lancé appel solennel. góor ñi laay wax. dama ne li ma li mu bëgg a wax faaw ma yegg. ba ci yow góor ñi laay wax. barki rasuululaay ku ci takk xamal ne njaboot gu bon a bon ngay am doo leen mën a contrôler ay fenkat la ñuy doon bu dee jigéen nag duma ci egg nag waaye na ngeen ci bàyyi xel ba épargne leen dem leen takk ci jigéen ñu baax ñi. épargne leen ñi may wax ni de xam nañ seen bopp. mais am na ñuy laaj. voilà ñetti sa plainte ak yan plainte si commentaire yi la la la si la yóbbuwoon si kanamu yoon ak wàllu yoonal exactement ba euh, nga jàpp ni mbir xaw a yéex. du jeex du xaaj. ban ak kan kan nga. Azura ci njëkkoon. si Azura si la ma daf ma menacé woon. dama non daf ma xam nga. Ah. sérieux bi maanaam est-ce que fii am na benn euh, sérieux concrètement ah. plainte yi Abdou. ah kon plainte am na bu sérieux bu sérieux wul xaw ma ko woon. man nga jàll euh, xaw ma ko woon. si mais loolu mooy a déduire exactement. non dama ko xamul woon rek man moo tax ñuy laajte ma ne ça dépend exactement si les faits. alors Azura nga ne loo ko doon toppee Abdou. ma menacé woon de mort. da laa menacé woon de mort. ak kanam penay Walfadjri la toog. Euh, Mati Sarr Salma dañ maa saaga ndey. loolu xam nga leer na moom vidéo bi ñëpp ko gis mu leer. waaw bon léegi nag moo tax ma yóbbu naa ko amul suite man am problème garaawul man xam naa ne du ma delluwaat du ma gara du ma ci kiyaat un jour vendra hmm. bu ñu yaakaaree ne bu ko defaatee ma noq ci kenn dina ma yóbbu kaso day nax boppam. Eh, loolu moom dama leen koy teel avertir xam nga man xam nga nit xam nga nit nit da ngay wax sa bopp dama yut fetoo faaw am na jigéen ñoo xam ne du ñu ay jigéen. génn nañ làngu jigéen ñi ñu war a protéger suñ dee protéger yenn ñi war ñu ci bokk parce que ñoom ay délinquant lañ jàppe seen bopp jàpp nañ ay góor lañ jàpp nañ ne mat nañ te gis nga ku ci róofoog man sa carrière fini parce que man xam nga nag man sama njullite daa des te Pastef ñii boo jàkkaarloo ñoom da ngay génne sa njullite teg ko fële ba pare dem tuubali yàlla boo guddee fan te ñaan naa yàlla gudd fan Pastef moom jàkkaarloog ñoom nekk jullit jullit mënu ko ba nekkee jullit bu sell jàkkaarloog ñoom ñu détruire la yàq sa àdduna foofu ko da nekk nekk maanaam da ngay nekk benn sadik boo xam ne moom doog a régler sa problème ak gëm yàlla moom da nga koy teg côté pour mën a régler seen pro dégg seen diggante ñoom parce que gëmuñu ko faalewuñ ko safawuñ ko dañoo mën a fen ñeme yàlla ñooñu nag boo jàkkaaroo ñoom sa waay doo fen de mais di nga am yo xamne dang koy def mais nak yalla du ko bëgg mais après yalla na comprendre. mais Abdou est-ce que des fois do doo euh ce mir ak wa passé bi nga am ay ay ay compte personnel. Hmm. ak li askan wi di la xaar exactement sen dundin manam passé su defee lu jaadu nga taxaw ni jaadu na way mise à part de cela amna ay problème ak ñafa nek billah xolal man la waatal non dama lay waatal passif heure buñ defé lu jaadu man damay taxaw ne li ñu def di jaadu na li rafet na li lii mais passif lo fi xam luñ fi def lu baax. dimbali ma nag wax ma ko bañ toogee ba tey wax ma lu baax lañu fi def. mais wàññi njëgu dund gi euh, état de parce que joxe woo dépense ñu xoolaat ko joxe woo dépense joxe woo dépense malheureusement yow moom ñiy seetaat buñ la diglu de xam naa ne dinañ la dundal foofu li ceeb di jaar léegi saako ceeb naa ma ngi ca vingt mille moom non parfumé Macky Sall dix-sept mille la ko bàyyi woon na suñuy trois mille lu baax amu fi lu bon doo nga fi am. nañ te dëgg yow tamit nañ bàyyi caaxaan yi man li askan bi xaar ci man maa ngi ci mooy di waxal askan maa nag ci biir waxal googu du ma nangu benn sàmba booy ñëw di yàq loolu askan bi xaar ci man ba chaque jour fu ma toogee ñu dem taal seen téléphone di ko seetaan loolu dinaa ko sàmm benn saay-saay bu bëgg a jug yàq loolu ma jëflante kook yow ci zaahir ak ci baatin nag man sam juma foofu ci li nit ñi wax ak li nit ñi xalaat ci zaahir laa la wax wala ci baatin gënuñoo xam nit ñi kër yu baax yi gënuñoo xam nit ñi lu bon gënuñoo mën nit ñi lu bon léegi nag justice moo fi war a nekk xam nga tax justice moo fi war a nekk pour àtte pour régulariser société mais justice bu dee boobu moom moo seetaan soo la fàllu tooñee nga dem duñ la faale boo tooñee fàllu ñu jàpp la tëj am na beneen justice nag bu fi nekk mooy bu suñ borom mm. ku maandu la nag mm. falaa yem euh, mi noonu exactement par rapport ak euh, mbir bu rapport ak li nga xam ne que mooy justement Euh, les dossiers de Abdou Ramnitam yi devant la justice alors euh, l'élénitam, c'est euh, si bien, ponk exactement Babs Abdou